diwlinu seggal jafe na ci marché Soumbédioune. Hmm, diwlinu man moom pour ma gis ko sax ci ci yi pour ñu di ko jaay nii diwlinu seggal la man gis mosuma koo gis fii de. diwlinu instant yi diwlin bi fi am de diwlin importé bi la ñuy jaay quoi waaw benn butéel jaune bi ak beneen butéel bu weex bi quoi. client bu ko jaay sax la ñu amut. bii yàgg naa bi mooy gën a doon daal parce que ba la ko laajee ba la ko laajee day yàgg de. Mm, en même temps tamit soxna tamit euh, kii wuñu ko xawuñu ko euh, farataal ko waaw ñu booy seetee dañ naa la diwul segal bi boo ko kiiwee day saxaar ak day xeeñ ak affaire yu demee noonu la. soxna si moom da koy toggee waaye mi ngi dëggal ni jafe na lool am ko ci suñu marché yi. waaw diwlin sagal dañ koy toggee kay. waaw dañ euh, dafa fekk gisaguñ ko waaye biñ ko gisee dañ koy togg. waaw ndax suñu alal la ñoo ko moom amul xet bu fa nekk dul xetu gerte te xetu gerte yu ñoo ko moom. ñoom nag jàpp nañu ne suñu gënoon a ñoŋal jiw segal gii gi ñu ko jaay te dinañ ci génn. bu ñu mayee yoon bàyyi ñoog suñu segal gi ah dinañ ko toggee kay ndax nit ku li nga moom ngay togg nga am waaw dëkk boo dem lu mu lu mu am bu ko moom lay dundee. mais diwli segal moom suñ ko munoon a am moom gars gën ko infiltrer ba mu gën a normal ba mu gën a pire bii parce que moo ñuy a parce que conseil local lañ wax. bu ñu mënoon bu ñu am boobu di ko consommer local di ko gën a filtrer ba nga xamante ni que boo toggee boo rësee du xeeñ ak affaire demee noonu boobu daal bu ñu ko mënoon am wax dëgg yàlla moo ñuy gënal. yaayum gerte gi tàmbali na ay bës a ngi nii diw gi ciy génnee nag jafe na gis ko ci suñu marché yi ci kàddu jaaykat yi ñu fekk ci marché yi su mbéjun